abone leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV dal leen ak jàmm mbokki internet yi way leen di abonné gannaaw nag mémorandum ba nga xam ne rek kii di président Ousmane Sonko mu ngi ko doon amal mën nañ ne nag daal di nañuy gis rek lancement bi nga xam ne rek daal di nay jib ko métti lu ga nga xam ne rek bind na ko ci ay poñ gannaaw nag avant li xewoon ci la première ak ci première bi ak après le premier rek doore ko nag naqar wi nga xam ne rek am na ko ci méttital ak naqaral gi nga xam ne rek teg nañ ko ay doomaanu Sénégal mën nañ ñu si bëree bëri jëre si ay lor ku ci mel ne Pape Abdoulaye Touré rencontré li nga xam ne rek moom mooy histoire am moom mii di Ousmane Sonko nag yamu ca ba tey nee na kat mbir mi dinañ ko daal di topp donte le nag gis nañ ñi nga xam ne rek ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan ba tey France daal di xëddeen takat loolee nekkul lu nga xam ne rek lu jaadu la mbir mi nag tax na ñi nga xam ne rek ñoom ñooy sénégalais yi rek daal di ŋànk bu baax a baax jàpp ba mu dëgër gannaaw ki nga xam ne moom mooy Juan Branco mi nga xam ne rek daal na koy cité ci li nga xam ne rek moom mooy mbir mi ni taxawaayam gannaaw bi mu gisee rek ni kat dañuy ak jaay doole ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko taxoon nag mu daal di wane lii di boppam ci dossier bi booba ba tey mu jàpp tëw a bàyyi nekkat mbir minimel rek tax jamono bi ñu toll nii ñu gis nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy sénégalais yi daal di yebbi li nga xam ne rek moom mooy seenu mer rek ci ki nga xam ne moom mooy président de la république nekkat yorin wa nga xam ne rek yore nañ ko réew mi nekk loo xam ne rek doyatu Ousmane Sonko rek daal di bindoon livre bi ni mel niki démb ñu daal di amal li nga xam ne moom mooy lancement bi pour naka daal di tegaat ci yoon li leen naqari wax ay kàddu yu bëree bëri jëmale ko rek ci état bu Sénégal ak méttital ak naqaral ga ñuy def askanu sunu gaal